sey moo amutul léegi doom li tax sey amatul. sey bu ci amul mbëggeel bu ne tas dana ci yomb. célibataire nday doxaan jigéen li nga koy mën defal sa ba nga bos koy doxaan mais bés bo bés bu demee mariage bu xasee ba am. sëy léegi dama gis léegi xale yi dañuy ngorante ba mag ñi ragal seytaan day am doole ñu may leen mais sey day day dañ lu tax loolu. ndax rek seyitu rek def leneen. te rek sëy yi rek fa tabaarakallahu foog rek ñu koy réglementé di ko di ko teg rek suuna si yàlla suuna si Muhammad